Euh, avant dernière question ma lay poser mooy est-ce que yow da nga am sentiment que dafa am foo far ci ci langue politique gi ba tax ñeneen war laa noonu wala déet. Euh, man faruma mënuma far je suis une personne très libre su ma toogee war a def sama émission. <laughs> et souvent beaucoup d'hommes politiques me le disent c'est-à-dire Maymuna bii waxtaan ak yow avant émission ngeen di préparer nga ñëw mu accueillir la elle te sert le café elle te donne de loo à boire euh, elle est très différente de celle que tu retrouves une fois les projecteur euh, allumés et le décompte euh, démarré parce que su ma bëggoon a far man j'aime bien la politique damay dem ma def politique te su ma defoon politique am naa yaakaar ne ak as xel bi ma am euh, mën naa ci doon lu ne mais yàlla dafa def man ma choisir métier boo xam ne métier boobu rek laa bëgg ci sama àddina bëgguma leneen su ma bëggoon leneen ma ma dem fa su ma bëggoon namoon leneen ma nekk ko ma nekk journaliste ma nekk journaliste te it ma nekk journaliste boo xam ne dama gëm la préservation des fondamentaux euh, de notre métier mu am koo xam ne euh, muy mon ancien patron de de Canal Info culture boobu moom moo ma ko moom moo ma ko inculqué euh, def ñu pendant six ans ma nekk di liggéey Canal Info dañ ñu nàmm ci équilibre de l'information euh, équidistance loolu laa indi fii parfois ma wàcc rédaction réunion de rédaction invité wu ci seen réunion di alerter je ne supporte pas le déséquilibre de l'information je ne supporte pas quand on ne quand respecte pas la distance critique et loolu ci sama bopp la la la njëkkee ñiy liggéey man xam nañu ko maintenant euh, j'ai un style qui peut plaire qui peut qui peut énerver euh, que certains peuvent ne pas comprendre man ma posture dépend de l'invité que j'ai en en en face euh, qui qu'il qui qu'il soit Euh, ku mu munta doon daal euh, man dinaa invité koo xam ne sama xarit la sax euh, <laughs> parfois seen famille dañu leen naan yow nga ne may mënu dul fay sa xarit la ci ndaw si du sa xarit ça m'est arrivé à plusieurs reprises ñoo xam ne on a d'excellents rapport on se connaît depuis 15 ans loolu dem ba jur benn benn benn affection fraternelle bi seeni njaboot xam ma ma invité leen ci télévision seeni jabar comprendre ñu ne ndaw si du seen du sa xarit kii elle était elle elle a voulu te détruire aujourd'hui elle a voulu te faire si euh, il arrive et ça m'est arrivé même pas longtemps que ma invité koo xam ne on a d'excellents rapports ma génn ñu xuloo il arrive que ma ma ma perdre des amis comme ça parce que nit ñi duñu comprendre bu ma ñëwee bu ma toogee ci plateau bi ma nekk beneen nit beneen nit bi may nekk nag mooy nit bi ma war a nekk mooy journaliste bi ma doon parce que yow mii di ñëw da nga ñëw pour défendre sa position man dama ñëw pour leeral li nga xam ne euh, moom mooy la lanterne des Sénégalais dama ñëw pour wax loola damay taxaw ci sama position wax loola et après les gens ne ne, ne comprennent pas mais ñi dëggu et dans cette affaire la heureusement beaucoup d'hommes politique l'ont l'ont l'ont reconnu ñu bokk opposition ñu bokk pouvoir ñi dëggu ñi xam nañ ne euh, man faruma fenn te relation bi ma sekk ak Mademba moom laa sekk ak euh, ma Masamba euh, au fil des ans je me suis fait euh, beaucoup d'amis mais sama bopp ma gënal du bañ naa la man du ma nekk journaliste ma toog ci plateau ma ma wàcc li nga xam ne moom mooy sama sama rôle di jéem a plaire à quelqu'un moi je cherche pas à plaire tant je suis sur le plateau bu ñu génnee nag dinaa dinaa mel ni ma mel